waaw ñu ngi gis nga gis nga buuxante ak lu mën a doon euh, euh, prison Sénégal yi ñëpp a ngi jooy seen état ni mel donte woon ministre bi wax na ni moom dem na fa c'est amélioré et moo man du ma politique du xeexal kenn sur le plan politique donc du ma ni ministre bi day wax lu ko neex comme ñu ma gisee ñenn ñi waaye ministre bi day wax lu ko neex et peut-être xëy na ay adversaires politiques lañ mais man kenn du dugal ci loolu man damay xool objectivement ministre bi moom moom jàpp na ne les conditions étaient améliorées am na ñu jàpp ne nos conditions c'est difficile de toute façon amélioration du doy kon ma li ma mën a wax mooy fu ay nit nekk dañ leen war a wormaal même bu dee ay prisonniers maanaam même ci biir l'islam yóbbu nit prison ah privation de liberté la mais ça pas di toroxal nit donc privation de liberté c'est une chose toroxal nit c'est autre chose toroxal nit nag mooy yóbbu ko xaw ma fan futti ko xaw ma lan euh, mu nekk ak moromu góoram ñu tafante noonu xoolal promiscuité boobu noonu euh, bu feebaree duñ ko duñ ko faj euh, nangam nangam yooyu kon jar na réew mi yëpp ak institution publique yi ñu gën a yittewoo condition wu les détenus kon rafet naa trop ñi nga xam ne ñu ngi proposé ki nga xam ni tëj ko lu yàgg foofu xam nga lu tax parce que magistrat yi doyul amuñu temps xool dossier yëpp mais loolu ku def dara waroo nekk victime ci magistrat yi doyul kon nañu gën a recruter ay magistrat wala su loolu amagul nañu may nit ki liberté nga xam ni bu ko defee sax du toog ci kaso ba yàgg fa ay mbokkam di indi añ reer nangam nangam mu dellu këram di def ay activité léegi su nekk ni proposition boo ma dégg euh, bracelet boobu noonu même Europe dañ koy appliquer baax na mais waruñ ko appliquer rek euh, en général même Europe ñu ngi koy appliquer borom ndombo tànk yi par exemple homme politique yu siiw yi nga xam ne dañuy bañ ñu yàgg kasoog yooyu ñu defal leen solution mais pour man ñëpp war a yem donc ñi nga xam ne defuñu benn crime bu mag. ñooñu moom jarul ñu génn kaso ki nga xam ne boo dafa rey nit ah wala benn dealer drogue bu mag yu mel noonu kooku moom nañ fexe ba téye ko temps bi ñu ko war a téye mais ki nga xam ne def na loo xam ni waaw ramasse yu mel noonu ak yu mel noonu kooku nañ ko bàyyi mu dell këram s'il le faut suñu amee bracelet ñu defal ko wala wax ko ni chaque jour xaw ma lan na jaar police signalé wu ko ni soriwul ak yu mel noonu loolu moo gën dajale nit ñi nii euh, feebar bi euh, ñëpp dajaloo noonu ci ay conditions yu xat xoolal nawet bi ak tàngaay bi ah euh, dajale ay nit. kon euh, islaam wax na ni effectivement mën nañ jàpp nit c'est normal parce que nit bu demee ba nekk danger public dañ koy jàpp duñ ko bàyyi ci mbedd yi muy lor nit ñi waaw voilà porté nañ la plainte wala dara rek ñu ne luus jàpp bàyyi la fa nga gis nag ñoo xam ne ay kilifa lañ xoolal ñooñu seen seen kaso seen kaso mooy dàq seen kër sax yéen saay bu ñu sëqatee ñetti sëqat ñu yóbbu leen France évacuation wut ay médecins yu leen defal ay faux certificat médical wane ni sama client dafa feebar il faut ñu yóbbu ko France euh, mënuñ ko faj fii fax ñu échappé wala nga gis wala nga gis koo xam ni parce que sur le plan social euh, dafa am euh, ndombo tànk dafa am kër gu mu bokk ah wala gis nañ ko fii tey jii ay nit yu ñu jàpp ci ay phobie wala yu mel noonu ñu fexe ba génne leen ci ku def moins que ça nga dee kaso wala nga def ay ati at kon dafa ay lobby yu nekk Dakar léegi am na ñoo xam ni dañ leen di jàpp xoolal détournement de deniers publics ay milliards xoolal ñu dugal leen ci chambre climatisée xoolal ci bi yenn saa yi sax am na ñoo xam ne nee nañ directeur bi da leen bàyyi sax guddi ñu dem seeti seen soxna ci ku détourné ay milliards maanaam ku waxuma ay ay rumeur de koo xam ne dañ ko condamné dans la justice léegi nag benn waaye bu jël ñetti ginaar fii ñu dem tëral ko ci benn basang foofu ça c'est la justice ça où est l'égalité citoyenne devant la justice lii taxul ñuy wax justice nii dans le droit positif ni dans l'islam kon nag nañu nañu seet affaire boobu ñu teg ko ñu teg ko ci ci yoon euh, su ko defee kaso li mu war a jëriñ rek mooy euh, nit ki xam ne mënuñ koo bàyyi muy def lu ko neex mais en même temps dès l' instant que ñu am possibilité bàyyi ko mu dellu ci activité dégg nga euh, wala ñu mën ko contrôler te mu bañ a nekk ci kaso bi loolu itam mooy gën a ànd ak li li lislaam euh, bëgg. vraiment loolu itam lu jara lu ma naqarul la lu jara seet la lu tax parce que boo xoolee li xew keroog ci affaire pharmacie boobu. di nga xam ne ala kulli xaal euh, commissaire boobu mën nga wax ne na mu taxawee rafetul parce que d'abord def naa ci ba fii de wax naa ci itam sama chronique yi rajo ma ne leen ku nekk su ñun fi nga féete société bi dañ la war a wormaal parce que boo fa féetewul nit ñi sonn tey ji yéen su ngeen deful seen rôle en matière de communication et cetera kon nit ñi dinañ sonn pour am les informations et du ko nekk mooy mën a jóg wuti ji ay information euh, pharmacien bi bu fi nekkul nit ñi dinañ sonn parce que médecin bi mën na la defal euh, prescription fa la ci mën a yem mais du la jox garab du kon les meilleurs médicaments bu la ko prescrire te amoo pharmacien bu la ko jaay da ngay dee kon euh, policier bi tamit côté sécurité bu fi nekkul ñu am problème parce que tey ji bu la jaayee doole fii ñëw sa kër duma la wala sàcc tey bu fi police nekkul foo jëm ah euh, bu ñu amul ay gendarme ak ay militaire yu protéger frontière bi fan nga jëm kon ñoom tam nañ leen jox seen cër mais commissaire bi le fait que mu jógee commissariat dem ci pharmacie bi rek war na tax mu wormaal pharmacien bi parce que dafa am lu mu fa soxla loo loo xam ne en tant que policier mënul ko boppam kon déjà loolu rek war nga jox nit ki cër donc dañu war a joxante cër léegi nag am grade rawatina grade force de l'ordre war a tax nga bëgg napp nit ñi yóbbu fitu nit ñi Euh, en tout ki nekk jullit te tam ku xam yoon yoon mayewu ko lislaam mayewu ko parce que l'islam cër buñ la jox ci société bi danga cee war a wekk nit ñi ba pare li islam di wax mooy nga gànnaaw ñaar gën jaaneew ñaari vertu xam nga mooy lan compassion rahma am yërmande ci nit ñi bañ leen jaay doole ah di leen woye falal lépp luñ soxla beneen bi mooy lan mooy ihsaan mooy bienfaisance rafetal lu nekk bu bu islam mais islam dafa exigeant ba nga xam ne islam déjà boo boo jéemul jëf lu baax bokkoo toog fii rek naan woy il faut que non j'espère que dinaa islam ne la toogal fële jóg jëf la islam bëgg mais jóg jëf doyul ci na jëf ba rafet loolu mooy lixsaan inna allaha katabal ihsaan ala kulli shay Dieu vous commande la bienfaisance en toute chose loolu la prophète sallallahu alayhi wa loolu mooy suñu viatique te ñooñu nga di ñoo ñëpp man su li ma gën a naqari ñoo ñëpp ay tur jullit lañu am te def loolu su ko defee amul lu nekk ci évangile lu nekkul ci alquran wala ci hadis mais kon ñu lan moo ñu dal ñu jullit yi kon il faut un changement de comportement Sénégal nag dama ne leen li leen xaw a yàqal tuuti mooy sëriñ lañ gën a xam que l'islam ma wax ko benn waaye mu ne ma eh looy wax nii ko attends ma ne ko boo jëlee commissaire boobu wala keneen def na loo xam ne tey islam daan na ko ci boo ko ne alquran santu lii mu ne d'accord boo ko ne hadis santu la mu ne d'accord mais tey bu fekkoon sëriñam moo ko woo ne ko bul def lii mu bàyyi mais alquran su ko nee bul def terewu ko mu def ma ne ko kon Sénégal moom est-ce que diw lañ gën a xam que euh, jox seen bopp lislaam adopter les comportements euh, musulmans donc je crois que euh, il faut il faut que nit ñi revenir à la lucidité à l'humilité fonction bi ngay def xoolal pharmacien boobu bokk te ñuy fay commissaire bi kon tu rends un service public mais Sénégal fii tu te demandes boo demee ci service public est-ce que ñii ay receleurs lañ wala est-ce que c'est des agents publics nga dem ay cadastre impôt domaine xoolal toute cette corruption là te ay sénégalais lañ comme ñun ñu leen fay mais tey boo fa demee ñu ne la neexalal kii kii yal kii euh, seen yu ñàkk fayda yooyu boo ñëwee toog ñu ne noo sant di la jéemal seet yooyu yëpp pour pour lekk sa xaalis na nga sant Kanté mais yow tey du na reetaan tuuti dugg seen doo génn yu ñàkk fayda yooyu mais man dem naa fi benn service public dama mujj gerte dem ma ñëw indi benn dossier waa ne ma waaw ma xool reetaan yow foo dëkk dama la xaw a xàmmee ne ma dem te ñëw déjà on perd ton temps c'est pas sérieux ñaareel ba Euh, daal di jékki-jékki mu dem keneen ñëw ne ma lan mooy sa dossier ma ne ko nii mu ne ma ñëwal sama bureau man la ne du ngeen eh, ma ping pong ah léegi mu bëgg traité sama dossier en l'absence de l'autre parce que am na lu mu ciy seet du moo ma xooloon ma jóg ma ne leen je suis pas d'accord avec ça te man dinaa dénoncer li dem sama yoon dem am fu ma leen dénoncer il faut que citoyen itam bañ citoyen itam il faut ñu xam ne lii c'est un service public bul abuser yow en tant que citoyen mais tamit sa droit bi ñu la joxul nañuy def ay pétition di def ay lettres di ko wax les les la hiérarchie pour que ñu xam ne lii c'est pas normal donc euh, commissaire boobu def na erreur bon du ma dugg ci détail yépp nii mais alaa kulli xaal dama xam ne rek en tant que commissaire bu ñëwoon wax de façon respectable présenté wu sax en tant que commissaire wax waa ji may commissaire parcelle kooku ci biir domaine am la bokk ne ko dama soxla tel médicament kooku dina ko ne écoutez monsieur le commissaire je vous respecte beaucoup euh, ma ko joxe sans ordonnance mu ne ko écoute kon ma dem te ñëwaat man dëkkoon naa foofu dëkkoon naa foofu ginnaaw ndami sukkeer c'est du commissariat <laughs> kon ban urgence moo fa am ba jar indi ay nit ñu jàpp xëpp ci génne c'est pas c'est pas une bonne urgence pour la police donc nañu nañu seetaat comportement yu baax a baax.